auzu billaahi sàmmug yàlla ak musalam yàlla nañ ca nu raw saytaane mi fakkatal julit bu gëm yàlla tey jaamoo jéema jubal day moytu saytaane mi def loo jubal mu dëngal tey tudd yàlla ni bismillaahi moo war moo tax ku koy tàmbale mbir yàlla dàq ca lor alhamdulilahi noo sant tey julli nag ci Mustapha boole cey saabaam da tàmbali nag di njëkk a borom Tuuba baax mi nu te dun ko jaawale moo jiite mooy ki nu doy di njëkk sant borom Tuuba mu baax mi nu te duñ ko jaawale moo jiite mooy ki nu doy murid yi ngeen déglu kàddu seede yi bëgg te jëm ci Seex Muntaxa waykal bi wax ko ca kaw ak dëgg deesu ko xumto gaañi buñ woyafal ku yàlla jiital baaw yiw raw na nuy welaxal sëriñ bu marab sëriñ yombul murit bu ci am ku mel ni seex muntaxa jàppal te xam li nga am seex muntaxa mbàkke dang noo bett mbett mu rëy moo xam ni dolli na sun ci yow mu doy danoon sëriñ Moustapha Basiiru kay jëf yu rëy jëf ku toog di am yaafuus nga ñëw ni nu wif jëf ju rëy nga def Tuubaa fi Daaru Minan fi Seex Basiiru te bi nun gañe nan jëf ju rëy nga def Tuubaa fi Daaru Minan fi Seex Basiiru te dëg bi nun gañe tabax juma boole kook ab lim ci ay miliyon jébbal ko Seex Ahmadul Amin gi ñépp dirang tabax juma boole kook ab lim ci ay miliyon jébbal ko Seex Ahmadul Amin gi ñépp dirang bëggoo ku wax lim ba doo la naw mbaa tagaateeka yéemaateeka wax waxi xew waaye ku gis nen ni lii am nan la kenn du ko bañ Seex Muntaxa Mbàkke moo baax googu kaddu dañ waaye ku gis nen ni am nan la kenn ko bañ Cheikh Mountakha Mbacké moo baax googu kaddu dañu borom xilaafa yi mooy Cheikh Baara yomb mooy mooy fas wéy ci ndigal mu bañatinoo dal mukk waaw yaar yooyu rek moo doon fas yéene nga jotal lu ndigal nga jotal lu ndigal ni eh, eh, eh, nangu lu gën ma nangu suñu taalibe nu gën a yeesal suñu jaayante. gën a mën a génn ci suñu bopp mën a joxe suñu bopp a bu faw loolu rek mooy mooy mooy mooy maa ngi jégalu nag fitna ji nga xam ne tege naa ko. danay sëriñ fàddiloog Cheikh Bamba cër la bu rëy risalatoom gi la xam naa goog musaala yamal Cheikh Muntaxa Mbàkke moo yaaroona moo ko dëggal yaa njëkk a yeeslu te yaa wan gaañi yoon wanu aw babaat bi doon benn ngay soññaate mbir di law amoo kañaan amuloo ak rey jox nga ko cër Seex Muntaxa Mbàkke yaa am war ma yaa bari ngor moo tax ba Seex Baara may lam nopp jox xolam teg la fi peggam di diisoog yow ci mépp mbiram te alal lañu daa gis ay mbindéef di ko man waaye te darajaak sañ ku baax ko man te alal lañu daa gis ay mbindéef di ko man waaye te darajaak sañ ku baax ko man ubbib jumaa bisub yawmal jumaati la yaa jiite julli ga ngir yaa wutu kii fi ne woon imaamu raatib ga seex abdul akim nga ko jox kon loolu seede na seen bennoo gi ñëpp di wax sëriñ basiiru njabootam noonu lañ masa mel jum nan juboo nan dañuy diisoo te gàttuñu xel nun seeni taalube nan roy loolu sax ci ndigal di moytu ay tere bennoo mooy li leen di nun seeni taalube nan roy loolu sax ci ndigal di moytu ay tere bennoo mooy li leen di bégal Cheikh Muntaxa mu mel la Cheikh Basiiru meloon kon nga jëngalaama ndax yokkaan nga lii fi newoon seexal basiira la jur jàngal la yar la moo tax nga silwiise am xam-xam ba dee war Cheikh Fallu mas na ni bis Cheikh Muntaxa ku ko raw amul ci waa Mbàkke ci maasam xanaa mu raw saa ga ak tab ga yow seex la raw amul ci mbàkkeeg bu kokki ñëpp la naw ci xam-xam maandu teeg jàmbaare ak jëfu yiwu te ak bokku yaatoo yaatu kenn la daw lamboo kersa te am yërmande doo daw doo fàtte kenn te am nga yëg sa jikko rafet say jëf rafet na ci biir ak biti wax ji rafet doo kuy waranteeg xëccoo dara yaa gën set Cheikh Abdoulaye Lahat nag mooy sa baay di sa mag